mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM ni ki nag ñuy dalal ki nga xam ni moom moo di Doura Cissé nekk maire bu commune bu Diendé euh, monsieur le maire ñun am nañ mbégte bu yaatu tey di la dalal ci émission gox bi ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di auditeurs yeeg auditrices yu rajo Rewmi FM. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. mbokki auditeurs yi ak auditrices yi yëpp maa ngi leen nuyu di leen sant di leen sant di kontaan ci sama teewaay bi tey invitation bi ñu ma defal si rajo Rewmi FM. waaw monsieur le maire comme ni nga ko waxee commune bu Diendé nga jiite euh, boo ñu doon wax commune bu Diendé fan la nekk ci diwaanu Sédhiou. boo commune bu Diendé euh, dafa nekk euh, ci région de Sédhiou. département de Sédhiou bon dafa nekk euh, arrondissement boppam on l'appelle arrondissement de Diendé bon juste avant ngay egg euh, ngay dugg Sédhiou moom moo nekk ci buntu d'entrée de Sédhiou donc euh, voilà nekk ci diggante commune bu Kousi ak commune bu Sakar gis nañ ñi nga xam ni moo jëm ci actualité bi bébé yi nga xam ni dañu génn àdduna fële nga xam ne moom moo di ca diwaanu Tivaouane mooy actualité bi gën a mag actuellement ci li nga xam ne moom moo jëm ci diwaan Sénégal alors yow ba nga yëgee loolu lan la la def. Euh, bi ma ko yëgee sama yaram daf ci daw lool euh, sama yaram daf ci daw parce que xale moom ñàkk bakkan xale même mag xale bakkan bakkan la rek ñàkk bakkan daal ñëpp xam nañ ne moom neexul bon bu amee ci yenn conditions yi aussi dafay yokk euh, dafay yokk inquiétude bi. Mm-hmm. bon di yokk jaaxle bi bon moo tax euh, euh, léegi autorités yi nit ñi dañ war a jël seeni matu matukaay mhm. pour que vraiment yu mel noonu bañ a bañ a reproduire moom kenn mënu ko contrôler nag uh-huh. mais nag bon moo gën a wàññeeku daal uh-huh. moo gën daal mais itam gis nañ fi Louga amoon na fii ak yeneen dëkk yi tey euh, Tiwaawan la est-ce que tey ñu ngi mesurer loolu est-ce que jël di ubbi ak enquête bu sérieux ngir mën a déterminer lan mooy waral li nga xam ne moom moo jëm ci phénomène yooyu bon oh, parce que loolu bon liggéey nguur bi la liggéey nguur bi la donc euh, je pense que ñu ngi siy jël seen i matukaay pour que vraiment loolu bañ a euh, loolu loolu gën a wàññeeku ci réew mi parce que sinon bon bu continuer nii bon ah toogaay nit ñi day xaw a am jafe-jafe la mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que yow ànd nga ci ñi nga xam ni ñoom ñooy wax dañu war a tekki nomba tànk ministre de la santé est-ce que yow ànd nga ci loolu. non foofu moom mënuma ci mënuma ci wax lu bari. Mhm. waaw. ok mënuma ci wax lu bari. Mhm. Mhm. léegi euh, li nga xam ni nag moom moo jëm ci euh, commune bu Diendé euh, comme li ñuy wax li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum santé commune ba ci wàllum santé naka la mel. bon commune Diender ci wàllum santé sante sax mooy wér yaram mais ñun dañ ne suñu commune bi dañ ko fekk mu feebar. ah feebar parce que voilà ci wàllum santé daal luñ fa fekk daal euh, dalul dalul xel daal. lan nga fekk. bon parce que commune Diender depuis Diender bi mu nekkee commune bi mu nekkee même arrondissement euh, man. suma fa gis loo xam ne mooy le matériel roulant fait un grand défaut dans la commune nekk problème bu mag commune Diender dañ fa fekk loo xam ne aussi euh, am na ñaar poste de santé mais poste de santé boo demee xool leen la sa yaram day daw parce que amul garab bu doy même fer ci boppam euh, jigéen yi buñ defee seen seen seen seen visite pour ñu jox leen feer sax dañ leen koy bindal par ordonnance ñu daw séeju dem jënd ko ñëw parfois même paracétamol sax day nekk problème donc euh, moo tax ñun ñu ne commune Diendé nuñ ko fekkee dañ ko fekk mu feebar donc feebar boobu ñun takk nañ suñu ndigg pour que vraiment euh, mu mu mu mu dey hmm. waa commune yu Diendé dafa feebar mais monsieur li ngay wax nii metti na xanaa ñoom autorité yi nga xam ni yéen yéen leen war a yëgal loolu ñoom yëguñu commune bi nu mu mel ci wàllum paj ndax li ngay wax nii doy na waar quand même. en tout bon doy na waar parce que ñun euh, actuellement comme on euh, ñu ngi door a ñëw. Mhm. liñ fa fekk laay wax à partir de liñ fa fekk ñun fi ñuy commencer. mooy ko ñu def suñuy requête lu ñu fa fekk def un diagnostic bu ñu defee diagnostic ba pare xam nañ ne lii manqué na lii manqué na lii manqué na bon ñu def requête yéegal lañ ko si autorité yi pour ñu jàppale ñu pour que commune bi ci wàllum santé mu gën a mën a dem ci kanam def nañ def nañ ci jéego bu bu baax parce que man mii ci sama bopp bind naa ay requête tasaare ko suñu diaspora bi. dinañ ci ñëw. voilà donc ñoom tamit ñu ngi si donc ce qui veut dire que autorité locale bu tey taxaw na pour que li nekkoon ci jëlle mu deñ wax nga ko ba ñu ne commune bi sax wax nga ko nga ne wàllum pàcc foofu dafa mel ni dafa feebar wàllum pàcc dafa feebar commune bi est-ce que tey am na ay ambulance yi nga xam ni euh, mën na nit ñi bu ñu feebaree ngir ñu wattu leen. waaw wax naa la ko parce que ci njëlbeen dama la ne euh, dama commencé sax ci ambulance parce que moo nekk instant bi nii ci wàllum paj ci suñu ci amul ambulance mosul am ambulance. commune bi ba mu. jënd mosul am ambulance. jënd chef lieu d' arrondissement jënd chef lieu de commune. mu am poste de santé kenn xamul kañ la mun naa ne sax l'arrondissement de Jiréji si jënd la jóge l'arrondissement de Djibabuya si jënd la jóge donc arrondissement bu mag la woon après mu am éclatement mais depuis booba jënd mosula ambulance loolu moom dafa dawloo suñu naka naka naka naka la ñuy mën a seetaanee ab commune bi nga xam ni ci wàllum wér-gu-yaram ambulance sax mënuñu ko am kon ñoom xanaa équipe bi nekkoon foofu euh, dañ fa doon taxaw di seetaan. bon équipe bu fa nekkoon bon xëy na ñoom tam def nañ seen lu ñu mën lu ñu mën comme ñun tam tey lu ñu fa nekkee nii ñu ngi def lu ñu mën. mën nañ fa def cinq ans jógee foofu keneen ñëw mu ne génn dama foofu dama ko fekk amul kii mais ñun euh, lu ma mën a lu ma mën a wax daal mooy ci sama bopp mm-hmm. donc man euh, maa ngi def lépp daal pour que loolu daal mu dañ jàng li passé moom loolu c'est c'est c'est c'est passé mhm. mais tey taxaw naa maa ngi woote toutes les bonnes volontés autorités yëpp pour ñu jàppale Diendé mu jógee ci ci problème boobu ah. mu jafe-jafe yi nga xam ni moom ngeen di dund tey ci commune bu Diendé te xam naa ne ci wàllum santé mais ba tey ci wàllum santé bi nga xam ni moom moo jëm ci diaspora wax nga ko léegi euh, kon da nga nekk di liggéey ak sa diaspora ngir ngeen mën a am ab ambulance bi ngeen mën a yóbbu ci seen commune. waaw diaspora bi parce que ci changement de situation daanaka am nañ si wàllu bu rëy wàllu bu rëy parce que ñu ngi foofu di liggéey ak ñun pour que vraiment moo am changement parce que ñoom ñëpp yéegoon nañ ne am na situation bi dans euh, ci commune Diender léegi bi ñu demee ba jàll tamit bon ñu ne ñun jarul ñu tëju dañoo war a ubbeeku si ñëpp ñu woo leen pour ñu dappale ñu ñu jàppale seen bopp dappale seen i mbokk yi pour que suñu commune bi mu jógee si loolu mm-hmm. léegi pour pour pour loolu pour loolu am comme euh, ambulance mun nañ ko am par don ambulance mun nañ ko am par euh, cotisation ambulance mun nañ ko am ci leneen bon léegi ñoom tam ñu ne leen léegi yéen tam fu ngeen nekk na ngeen fa góorgóorlu ku ci njëkk am ñu xam ne daal kii moo am mais pour la commune de Diender léegi ñoom tam bon ñu bind leen lettre lettre boobu dem ñu tasaare ko ci région yëpp yu nekk foofu Europe ci boppam euh, après par la suite <coughs> ñu dem ñu lancé benn euh, quête ñu ne il faut que tout fils de Diendé ou bien en tout cas bonne volonté képp ki nga xam ne daal problème bi daal c'est sensible pour toi na nga ci def voilà participer def ci sa doole pour que ñu cotiser lu ñu am ñu ñu ñu ñu ñu jënd si ambulance. Mm-hmm. Mm-hmm. mais est-ce que da ngeen ni euh, seetaan tey dafa mel ni kon réewum Sénégal wala état bu Sénégal daf leen seetaan. bon seetaanuñu dama la ne seetaanuñu. parce que c'est trop yow li ngay wax nii dafa métti commune bu euh, wàllum paj sax yow nga war a dem faju ji ñoo ñoo la gën a feebar. seetaanuñu de. Euh, autorité euh, réewum Sénégal. nañ ko ñii autorité euh, ci diwaanu Sédhiou est-ce que yëg nañ lii. ñoo ngi si ñoom ñëpp ñu ngi si fi mu ne nii du problème commune kese du problème maire kese même autorité locale yi administrative locale ñoom ñëpp takku nañ seen pour que affaire bi dañ parce que lettres yi yëpp jaar na ci ñoom ñëpp te ñoom ñëpp ñu ngi ñu fu ne donc ça veut dire que. bii problème bi c'est sérieux et que ànd nañ si que Diendé léegi moom war na mën a am ambulance. waaw war na mën a am ambulance kon mu nekk euh, cri de cœur bi nga xam ni moom moo di maire bi nga xam ni moom moo di euh, bu jënde euh, bu ñu waxee Diendé itam du wàllum pàcc rek moo fa nekk. wàllum infrastructure kon xam naa ci wàllum lekkool yi. wala sax laata ñuy dem foofu lan mooy sa programme pour génne génne ci jafe-jafe bi mu nekk ci wàllum santé. ci wàllum santé pour que jënd mën a dem ci kanam euh, moo génn ci jafe-jafe bi premièrement il ñoo am luy lu ñu naan ambulance euh, deuxièmement plateau médical bi il faut que ñu relever ko parce dafa faible de trop Euh, aussi boo nee santé environnement dafa bokk na si donc dafa war a nekk diwaan boo xam ne mu set te tey jii am nañ foofu ñi ñi nga xam ne ñu ngi wa ñu ngi yëngu ci wàllu boobu pour que bref parce que avant la santé c'est la propreté d'abord mm-hmm. donc bu bu bu bu sa yaram setee wér yaram bi mën a dal. waaw personnel bi nag ndax am na personnel bu doy ci yenn structure de santé yi. waaw jënd euh, ci yenn structure de santé bon euh, am na fa am na fa infirmière am na sage-femme donc euh, mais lu ñu naan rek dara du doy daal. nañ dolli nañu dolli rek waaw bu ñu mun a dolli le dina baax parce que instant bi nii maa ngi lancé benn programme de recherche de de. le kii comment ça s'appelle euh, non non euh, benn rajo rajo rajo pour les femmes la. Ah. donc euh, maa ngi lancé. voilà la radiographie maa ngi lancé programme boobu. léegi programme boobu bu amee il faut mu am kenn koo xam ne. spécialement moom mooy moom mooy liggéeyal loolu. boobu xanaa di nga def ay jumtuwaay pexe ci ministère ñu jéem leen envoyé kenn ki nga xam ni mun na def loolu. incha allah dinañ def loolu dinañ def loolu bu bu loolu amee rek bu loolu amee il faut qu'il y ait euh, que nit boobu buñ ko amee ñu former ko. buñ ko former même si c'est au niveau local. mais ñu former ko après moom tam parce que ça fait partie. si création emploi yi quoi mais ba tey ci wàllum faj ñu jeexale ci ponk boobu peut-être am na personnel bi nga xam ne nekk fa war nañ ko yokk ainsi de suite est-ce que ñoom itam commune ba mi ngi génnee subvention di ko jox ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci wàllum secteur santé. secteur santé en tout cas ñun def nañ ko def nañ ko ren mais juste ci wàllum. relèvement du plateau médical bi donc euh, am nañ benn fonds bu ñu alloué euh, au structures de santé pour ñu def euh, seen expression de besoin bu ñu ko defee rek déposer ko PRA comme ça ñu mun leen ko jëndal daal waaw waaw moom mooy suñu gan ci émission gox bi moom mooy maire bu commune bu Diendé euh, monsieur le maire itam xanaa wàllum éducation itam li nga wax ci jafe-jafe ci wàllum santé xanaa amu leen problème boobu ci wàllum éducation de. bon éducation aussi ah <laughs> éducation aussi. Diendé moom euh, aussi mais bon xaw nañ talante éducation bon mën nañ ne xale yaa ngi dem école. sans problème mais lu ñu am problème bu ñu am mooy infrastructure scolaire voilà école yi école yi jënde daanaka war na am une dizaine une quinzaine d' écoles donc euh, mais le problème bu ñu am foofu mooy que écoles yi la plupart clôturé wuñu leen bon y' toujours des huttes am na toujours ay ay ay craintin abri provisoire donc euh, nekk na loo xam ne aussi dañ ko bëgg a jël pour éradiquer lépp jógee fi lépp comme ça population bi élève élèves yi mën a nekk ci jàmm mm-hmm. voilà mm-hmm. mais euh, yaa ngi koy wax clôture amul ci école yi abri provisoire te moo ne de état bu Sénégal jëf na jàng priorité ci li nga xam ne moom moo jëm ci loolu mais est-ce que itam euh, jéego bu see war ñu ngi koy def ngir mën a maintenir xale yi ci l'école waa jéego boobu boobu moom mi ngi foofu parce que bon Casamance Ndiéndé en tout cas mi euh, euh, ngi léegi bëgg nañ ko kenn ku nekk bëgg nga sa sa doom jàng. kenn ku nekk bëgg nga sa doom jàng donc euh, ci wàllum parent yi ñoom ñu ngi taxawal seen doom yi pour ñu jàng jafe-jafe bi kese mooy que xale yi bu ñuy dem école bu ñu demee école parents maanaam ñu nekk si abri provisoire bi mu dee temps seddaay ma day xaw a day xaw a métti aussi boobu dafa nekk loo xam ne insécurité la parce que insécurité fu mu nekk rek ñoom sa xale bu dem école rek yoon yi nekk voilà sa xel du dal ko mhm. donc loolu la mhm. waa léegi ci wàllum jàng est-ce que motivation dina ci am parce que tamit des fois dañ ko naan ci wàllum distance yi xale yi bu ñuy war di dem di école distance bi bu xawee sori bu amul motivation léeg ñu bari dañuy dañuy lâché. bon léegi bu njëkk la woon mais léegi loolu amatul parce que léegi am na CEM de proximité am na lycée de proximité léegi daanaka presque dans la commune am na ñaari CEM am na benn lycée. donc ça veut dire que xale yi mënuñu génn ba sori yenn soriyaay yi xam ne dinañ découragé pour jàng parce fu ñu dem mën nañ dem jàng le soir ñu ñibbi seen kër donc distance bi ça fait pas matul ay deux kilomètres ay trois kilomètres la donc ce qui veut dire que loolu lu am amul benn problème lan commune bu Diendé ngir sukkali wàllum njàng bi bien vrai que lu ci bari du sa prérogative yoo xam ni yow mais euh, ndaxam tey yaa ngi accompagner l'école yi ci en terme de subvention. waaw en terme de subvention maa ngi leen euh, jàppale parce que voilà maa ngi leen jàppale am nañ fonds aussi bu ñu alloué pour euh, ouverture yi pour di defar. clôture yi pour di defar euh, salle de classe yi mm-hmm. là où y abri provisoire programme nañ tabax foofu même bu dee duñ ko def defandoo benn yoon mm-hmm. mais dana ndank rek mais suñu bëgg nañ daal balaa ñuy jeexal les cinq ans en tout cas jënde sans abri provisoire mooy objectif bi nga fixé. oui objectif bi mooy sama objectif bi. Mm-hmm. voilà sans abri provisoire et que toutes les les écoles ñu mën leen clôturer tamit. Mm-hmm. lan la war a def ngir am école bu performance euh, ci sa wàll. bon école bu xaw a performance il faut que ñu pousse xale yi ñuy jàng pour ñuy pour que performance bi mën a am mm-hmm. il faut ñu installer benn prix d'excellence donc euh, prix d'excellence boo ko. yaa ngi koy xalaat foofu. ñu ngi koy xalaat. ñu ngi koy xalaat dugaloon nañ ko ci suñu programme bon mais comme budget bu ren bi dañ ko fekk ñu voté ko ba pare mais ce sais que à de cette année at yee di ñëw incha allah dinañ ko dugal pour gën a pousser xale yi ñuy ñuy ñuy gën a jàng daal dañuy gis ni abandon scolaire bi ak euh, dafay gën a bari ci ci jigéen ñi euh, suñuy maam yi nekk foofu des fois boo xawee nekk jànk rek du ñuy bëgg sëyu teel yi mën a yàq jàng wi ba xam tey mbir mi mi ngi soppeeku foofu wala. waaw mi ngi soppeeku ah. mi soppeeku parce que mm, léeg-léeg euh, parent bu nekk bëgg nga sa doom jàng léegi. ko muy jigéen ko muy góor. Mm-hmm. bëgg na ñëpp jàng. léegi am na yenn euh, sensibilisation bu ñuy def ci gox yi euh, par exemple si journée culturelle yi ci Fosco yi xale yi dañ ci dañ koy dugal ci seen i message yi pour que vraiment ñu bàyyi xale yi ñuy jàng surtout muy jigéen ñu bàyyi di leen teel a di leen teel a maye parce que sinon mm-hmm. dafay dagg seen jàng bu demee ba mu see ba pare rek jàng bi pare na si donc ça veut dire que loolu loolu tamit bon nekk na loo xam ne wàññeeku na lool lool lool ci suñu gox yi mhm. waaw léegi euh, ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum éducation jeexalee euh, ponk boobu actualité bi gis nga ko semaine bi gouvernement bu Sénégal ak syndicat yi nga xam ne ñoom ñooy jàng euh, gis nañ ni dañu xaatimoon benn accord bi nga xam ne amoon na seen diggante euh, mais amul ba tey gis nañu grève bi reprendre na est-ce que du perturber ñi nga xam ne ñoom ñoo di xale yi. waaw dina leen dina leen dina dina perturber xale yi dina perturber xale yi parce que grève amoon na grève bi jeex xale yi demaat ci classe. léegi ñu ngi waaj a tëj pour ñu war a def examen def examen ñu war a préparer dem kii léegi bu grève amaatee encore rek rupture day am te rupture boobu amee rek dafa mel ne lu ñu jàngoon lépp parce que xale ya ah, bu ñu amee un temps de kii de dañuy fàtte léegi bu ñu moytuwoon rek dina yokk taux de taux d'échec quoi euh, ci examen yi euh, concours yi peut-être gouvernement certes def na ay jéego am na ay def na ay amélioration mu gën ko yokk gën a jiboo ak moom ngir ñu reprendre ci yoon école bi en tout cas ñu ngi ñaan enseignants yi daal ñu ñu ñu ñu delloo classe yi ku nekk parent voilà voilà ñu delloo classe yi parce que euh, gouvernement daal lu ñu dégg def na jéego bom bu baax sax démb sax maa ngi ko doon wax ma ne pourtant gouvernement bi lu mu def je pense que enseignant war nañu waruñu waruñu waruñu mën a delluwaat encore ñu ne dañuy réclamer waat leneen fond donc dans ce cas là bon ñoom dañu war a. mais net à bon je ne suis pas enseignant. Mm-hmm. nekkuma enseignant xaw ma ndax jot nañ ci wala jotuñu si. mais lu ñu dégg xam naa ne gouvernement war na ko def. loolu moom mën a apaiser secteur bi est-ce que tey foofu warul mën a nekk benn prétexte bu année bi jeexee lépp li nga xam ni accord la waxtaanee woon nañ ko ngir mu jeex benn yoon ngir juróomi at wala dix ans ñu jàng ñu bañ a am benn grève bi nga xam dinañ ko am école bi mën a am stabilité. en tout gouvernement bi wax daal je pense que euh, loolu mooy solution daal pour que situation scolaire bi mën a apaiser fii ba fii ba ay at parce que augmentation bëri na de man de man de bu dee man la de su ma fa nekkoon ah man de dootuma grève ah dootuma grève non dootuma grève dootuma grève bu ma ko deful pour la gouvernement mais dinaa ko def pour sama bopp parce que sama xale yaa ngi foofu ñu ngi jàng yow sa xale yaa ngi foofu ñu ngi jàng man maa choisir métier bi man maa ne damay dem enseigner voilà donc ñëpp xam nañ ne. dañ war voilà voilà donc loolu la xam doo du du lépp ngay jàpp. Mm-hmm. waaw mais boo jàppee fii buñ la buñ la buñ la fexlee foofu. Mm-hmm. boo jàppal feneen waaw. ba tey delluwaat ci commune bu Diendé parce que commune bu Diendé vraiment monsieur le maire euh, tey li nga xam ni nag moom moo jëm ci commune ba xam nga wax nga ko euh, am na yu bari yi nga xam ne war nañ ko def foofu mais est-ce que tey commune ba ni mu développement bi ci war est-ce que yéen yéen a ngi teg ay jalons yu ni mel pour jéem a yóbbu commune bi ci wàllum émergence ban yoon ngeen faral di aw. bon yóbbu jëndee ci yoonu émergence yi ñu ngi si. parce que premièrement ak sa programme. effectivement premièrement premièrement mooy santé bii ni buñ defee lépp ba santé bi normal rek mun nañ ne jënd sax dem na si kanam. Mhm. bon boo jógee ci santé bi ñëw si éducation bi parce que boo bu wér amee. Mhm. war nga mën a dem jàng donc boo jàngee ba pare liggéey war na am. donc ndaw yi kenn de nekkuñu di liggéey. ah bon nekkuñu di liggéey xam nga liggéey foofu du ñun ñoo leen war a jox liggéey. mais dinañ leen won ay piste boo xam ne buñ fa duggee rek. yow yan piste yan piste par exemple. bon y des des des formations il faut leur inculquer du savoir donc des pistes de de formation. buñ leen former ba pare après on les oriente ñu orienté leen. si si ay entreprises yi si ay écoles yi bu dee écoles yi la pourquoi pas même au niveau de la mairie ñu ñëw foofu hmm. def seen def foofu stage bu ñu defee stage ba pare rek après ñu bàyyi leen ñu dem ñu dem ñu dem wuti liggéey feneen hmm. mais ñu jàppale yooyu pour ñu mën a pour chômage bi mën a wàññeeku hmm. te loolu ko mais gouvernement bi mën na ko ñun mënuñu ko mais autorités yi mën nañ ko donc euh, ñu ngi vraiment lancer en tout cas mhm. ce plaidoyer euh, aux autorités mhm. ñu jàppale commune bi pour que ndaw yu mën a am am xëy mhm. euh, bu ñu jógee foofu ah, xëy sax est-ce que tey kon wàllum industrialisation nekkul lu am solo ci commune bu Diendé je je m'explique parce que tey li nga xam ni moom moo jëm ci biir àll bi gis nañ am na meññeef yi nga xam ni dina am foofu euh, tey bu ñu defee yenn indice comme màdd jus bi mango boog ainsi mën na nekk source motivation bi nga xam ne dina ko mën a am ci ndaw ñi pour ñu sukkali gox yi ak métier bi wala xëy mën a am foofu. bon tout à fait industrialisation bi lu lu lu war a am la lu war a am la buñ ko amee parce que Euh, am na yenn potentialité mhm. fruitière boo xam ne buñ amee tuuti matériel rek mun nañu mun nañu am ne mun na dem ko léegi matériel boobu moo manqué moo manqué parce que faute de moyen amuñu parce que même ñun suñ ko bëggee mhm. mais mënuñu ko installer foofu mhm. naka la ñuy def il faut ñu dem wuti partenaires yi il faut ñu dem si ñu ñu ñu ñu def autorise kii demande mhm. aux autorités pour ñu jàppale si ñu amee euh, foofu une unité mhm. de transformation mhm. pour que xale yooyu yu ñuy wax noonu ñu mën a ñu mën a am foofu xëy bon am na aussi bon les partenaires déjà ont commencé à, à nous contacter surtout le programme Promoged promogel buy dem si traitement des ordures solides voilà donc euh, ñoom euh, dem nañ daal ba nekk euh, benn partenariat ak ñoom bon de sorte que industrie boobu mhm. si jënd lañ koy si jënd lañ koy installé léegi bu jënd mun nañ ne bon suñu problème bi dina xawa a wàññeeku même si c'est pas à cent pour cent même si c'est pas à cinquante pour cent mhm. mais quand même de solution la comme vous venez de le dire mhm. bon am na aussi agropole agropole bu ñuy programmer voilà bu ñuy programmer foofu aussi mhm. mm, suñu zone bi jende la ñu programmé waat encore pour pour loolu léegi mën nag ne loolu tamit bu demee ba mu sotteeku bon suñu problème dina mën a réglé wu ak aussi euh, aussi euh, voilà donc euh, donc je pense que yooyu la mhm. yooyu daal suñ ko amee daal mhm. bon mun nañ ne suñu commune daal dina ma espoir mun na mun na am espoir mun na am bon euh, ci wàllu infrastructure aussi pour émergence bi mhm. bon bu ñu parce que jënde amul ndox da ndox jënde amu comment ça. Diendé Diendé moo tax man la Diendé depuis hein, euh, depuis le temps jusqu'à aujourd'hui même chez le sous-préfet amul ndox loo potable amu fa l'eau donc euh, forage am na fa mais forage y a des problèmes euh, jéem nañ ko réfectionner l'année euh, at yee passé mais ba léegi doxul problème extension problème forage problème groupe problème machine tout cas Diendé daal y' a plein plein plein plein. ñu ñëw ci problème ndox bi parce que Diendé am problème ndox tey vingt et unième siècle mënu leen am eau potable ci lëkk bi. mais loolu nan lañ ko mën a expliquer. en tout cas bon ñun ñun ñun ñu ngi ciy def euh, lu ñu mën mais nuñ ko war a expliquer. Euh, loo xam daal noo koy expliquer. soit euh, c'est trop difficile soit c'est trop difficile parce que sa dëkk ñëpp di wuti di wuti ndox au potable yow sa dëkk amul euh, loolu je que boo amee moyen yow mi ci sa bopp sax ah. war nga ko mën a def à plus forte raison soo amul moyen mais nga nekk ci moyen boo xam ne daal nit ñi ñoo la ko jox war nga mën a war nga mën a def. ala euh, programme yi PPDC yeneen yi PUDC yi. ñoom ñoo def euh, réflexion yooyu sax. ñoom ñoo def réflexion yooyu. d'ailleurs sax bon ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ils sont ils sont ils sont ils sont venus ils sont venus ñëw nañ foofu fan yi passé toog nañ mu wax moom bind nañ lettre adressé ko coordonnateur du PUDC. bon bind nañ lettre aussi adressé ko. au représentant régional qui est à Ziguinchor donc euh, pour que vraiment problème ndox mi boobu suñu suñu suñu suñu suñu suñu problème la daal suñu problème la bu ñu ci jàppalee vraiment dina nekk loo xam ne daal même bu ñu amee loolu kese kese kese man dama ne jënde jënde dem na jënde dem na. monsieur le maire kon euh, am ngeen liggéey yéen ci mairie bi. am liggéey lu bëri xam nañ liggéey lu bëri. am nañ liggéey lu bari électricité ci boppam amul. loolu dinañ ci ñëw. <laughs> am nañ liggéey liggéey lu bari jënd daal jënd daal liggéey liggéey liggéey foofu daal waaw. Doura moom mooy maire bu commune bu Diendé euh, ñu ngi waxtaanee ci commune bi jóge ci wàllum ndox wàllum électricité ak nu mu amee solo yéen kon dañuy branché ñi bàyyi ñii noonu ngeen di waa jënd moom jënd moom daanaka yaa kat am na quatre village cinq village yoo xam ne daal ñoom ñoo am courant jënd ci boppam am na courant bu doyul bloc am na <laughs> am courant bu doyul Turekunda Sitaba ak si boobu am nañ jënd à vingt neuf villages donc boo xoolee yaa ka sept village ou huit villages yu am courant tous les vingt vingt vingt vingt vingt et yëpp amuñ donc et la plupart euh, village yooyu haute tension daf dafa traversé si village yooyu parce que boo jógee Sédhiou ñëw ba Diendé Sédhiou Bakun ñoo am courant village yëpp yu nekk ci diggante boobu amuñu ko boo jógee Diendé di dem Siitawa am na man diina foofu Mandina à trois kilomètres des deux des deux villages amul courant léegi lëndëm ngeen ni dund ci commune bi commune voilà vingt neuf villages yi. ak à part quatre yi nga xam ne am nañ. depuis cinq yi six yi daal yëpp si lëndëm lañ nekk depuis xaw ma xaw ma kañ la léegi nag ñun bon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaax. toogoo leen di seetaan daal di seetaan daal parce que bon d'ailleurs commencé nañ benn programme d'électrification publique bon euh, commencé nañ ko si jënde tey boo demee jënde vraiment mun nañ ne am nañ ëpp de soulagement même bu dee courant eggul ci kër yëpp mais quand même si tali ardure yi. Mm-hmm. Euh, dina fay yooyu yëpp daal yooyu yëpp daal am nañ. Mm-hmm. am nañ est-ce que lancer un cri de cœur tey au au directeur de la Sénélec. de la Sénélec euh, vraiment ñu ngi koy ñaax mu jàppale ñu pour que suñu village yooyu au moins. yi nga xam ne même même village yi yëpp. Mhm. mu jàppale ñu daal ñu am courant parce que ñi nekk ci biir y a deux villages seulement qui sont à l'intérieur ñu nekk ci biir c'est à sept kilomètres de la route bu gën a sori c'est à sept kilomètres de la de la haute tension mais sinon yëpp yëpp yëpp ci suuf haute tension bi lañ nekk mais. xam xaw ma fan mooy problème bi. guddi noir ngeen di gis. lu lëndëm noir la ñuy gis lu lëndëm la gisee fii insécurité bi day gën a bëri jaan yi mën nañoo mat la mën nga dajee ak euh, lu loo xam ne rat par exemple mais bu lumière amee boo gisee lu lu ñuul da ngay xam fi ngay jaar mais booy dox xamoo sax fooy dem nga dem rek daje ak loo xam ne suba mën na la lool donc insécurité bu ñuy wax si ñun la gën a bëri sax donc ah, parce que euh, tey fu ñu toll tey ci réew mi di wax yenn dëkk yi nga xam ni tey amul courant man euh, est-ce que tey yéen askan wi léeg-léeg itam ñu dégg leen ñu xam ni yéen ñu ngi leen di bàyyi xel wala da ngeen toog rek jàpp seen ñàmbur itam. noo ñun ñu ngi def suñu suñu liggéey ñu ngi def suñu liggéey ñu ngi def lu ñu mën. ñu ngi def lu ñu mën population bi xam nañ ne def nañ changement changement bi bon on est à quatre mois seulement donc am na lu ñu jot a être am nañ ci yaakaar te tooguñu tamit ñu ngi dem di continuer di wuti. parce que boo amul bul toog boo toogee dara du la fa fekk donc moo tax ñu ñuy wut di tàll suñu loxo si képp koo xam ne daal mun nañoo mun nañoo jàppale. mu jàppale commune bi pour mu mun a pour mu mën a dem. conseil départemental itam est-ce que mi ngi def ay jéego ci yéen wala yéen a ngi yeggee seen jafe-jafe yi ci ñoom parce que itam ñoom ñoo yenn coiffé yenn yi moom ngeen mën a yéen a jox seen yenn seen programme ci ci wàll woowu tey euh, naka ngeen gisee seen taxawal foofu. bon taxaw nañu ñu ngi taxaw de ñu ngi taxaw de parce que rien que hier seulement. Euh, maa ngi doon wax ak euh, directeur cabinet bu président bi euh, mu ma doon laaj suñu programme prioritaire yi bon envoyé naa naa ko ko maintenant li ci des mooy le suivi su ma demee naa dem seen bureau ñu toog ñu wan leen ñun suñu programme suñu problème ci suñu commune bi lii mooy suñu problème léegi ñoom parce que cela dépasse nos nos compétences comme ni nga ko waxee ñoom ñoo ko war a def léegi bon ñu dem bu ñu bu ñu toogee ñoo xam léegi ñoom ci lan la ñuy ci lan la lan lan la ñuy mën a jàppale pour que ñun suñu problème bi mën a régler hmm. ci ci ci ci wàllum lamp kon lampadaire solaire yi kon xanaa xëy na moom moo nekk ci commune ba waaw lampadaire solaire sax amul lampadaire solaire sax amul ma man maa indi benn lampadaire benn lampe benn lampe électrique la quoi. Mhm. mais public solaire bi buñ ko amee sax nga xam ne village yi nga xam ne amuñu courant sax mun nañ ko yóbbu foofu daal ñu installé ko foofu comme sax ñoom aussi ñu jógee si lëndëm voilà mais même loolu sax amuñu ko mais am nañ si yaakaar am nañ si yaakaar si suñu autorités yi mhm. am nañ ci yaakaar lu bari ñoom daal dinañu si jàppale. Mhm. waaw xam naa le moment n'est pas encore venu mais man parce que dama yàkkamte gis jënd au moins mu nekk bu nekk capital régional jënd bu nekk capital communal au moins moom moom. c'est possible jënd mu nekk capital régional. non capital je peux je peux dire capital arrondissemental. Mhm. arrondi bon voilà donc. Euh, c'est possible arrondissemental je dis. Mhm. jënd jënd oui bien sûr. c'est le chef-lieu de l'arrondissement. Mhm. le chef-lieu de l'arrondissement. donc chef-lieu de l'arrondissement on peut dire <laughs> que mën naa mën naa. Ah, parce que bu ñu demee ba naan dëkk bi amul ndox amul courant. c'est possible c'est possible c'est possible mën nañ ko def mën c'est une question de volonté bëgg-bëgg parce que suñu suñu suñu dëkk la. Mhm. te ñu fa nekk suñuy suñuy suñuy suñuy papa lañu suñuy yaay lañu suñuy doom lañu suñuy maam lañu. Mhm. man ñii maa ngi ci biir. bu dee insécurité ci sama bopp la njëkk njëkk dal donc du ma nangu nekk ci insécurité ba ba ba ba fo il faut que ma def lépp pour que vraiment dëkk bi mu mu xaw nekk dëkk boo xam parce que jënd jënd sori na pour ñu déggee turu ak boo demee jënd fi nga koy fekk rek c'est deux choses remettre en cause kon dëkk bi def leen ni tur bi def leen ni nax. voilà c'est ça tur bi daf ñuy nax. léegi infrastructure yi jëndee wàllum tàggat jaram loisir environnement bi naka ngeen koy jëndee foofu. piste y de production. Mhm. piste de production amuñu ko maanaam les sept villages là qui sont à l'intérieur. Mhm. Euh, bu ambulance amee xam nga ni ngi yàkkamte ambulance am. ambulance su amee pour mu dem jëli malaad foofu boo moytu bu demee jël malade dugal ko si oto bi balaa muy egg tali rek malade bi faatu. tellement que yoon bi baaxul. kon bu tawee yi bu tawee daal billage yooyu daal. ils sont presque enclavé yoon bi day xar ban lay nekk oto bu demee foofu daal pour mu mën a daw daal si des problèmes donc yooyu tamit nekk na loo xam ne ñu ngi koy ñaax koy demander autorité yi jàpp ñu jàpp si parce que ñun loolu moo tax population bi votel ñu pour ñu toog donc bu ñu toogee tamit lu baax ci population bi. Mm-hmm. war nañ ci mën a tax donc moo tax euh, piste de production yi. Mm-hmm. vraiment aussi nekk na lu ñu lu ñu xaw lu ñu gën a lu ñu gën a demandé tamit. Mm-hmm. ci wàllum jumtuwaay comme environnement bi ah, naka ngeen ko gérer foofu wala cadre de vie bi am na ci leen li nga xam ni mën ngeen ko soppi foofu ak li nga xam ne moo di tàggat yaram itam. Euh, xale yi mbirum stade foofu est-ce que am na ay amélioration bon stade stade stade moom jëndee amul stade mais am na terrain municipal léegi terrain municipal boobu ñu ngi koy liggéey tamit ñu ngi koy liggéey tamit au moins si moo liggéey ñu ngi koy liggéey daal waaw mhm. euh, liggéey boo boo bu yem daal ci suñu ci suñu ci suñu doole daal. Mhm. waaw parce que loolu lañ fa fekk donc euh, toujours euh, budget budget bi dañ ko fekk mu ñu ñu ñu programme wala ñu voté ko ñu fekk déjà stade bi ñu attaqué ko. Mhm. léegi dañuy xaar dañuy xaar ba ñu pare. Mhm. ba ñu pare après ci ay at. ñun tam ñu xool lan lañ ciy yokk pour mu gën a améliorer aussi parce que ñoom nuñ ko programmé bon si si si loolu la ñu yem ñun aussi mën nañ ko jël foofu yokkaat si leneen loo xam ne bon dina dina xaw a mën a kii la. Mm-hmm. mais njiitu réew mi doon nañu wax ni dina ñëw ci diwaanu Sédhiou kon xam naa ni yéen ñàkkul yéen a ngi préparé seeni këyit daal di ko koy jébbal won ko ni dëkk bii di jënde dëkk bu feebar la te faw mu faj. waaw loolu loolu kay mënut ñàkk moom mënut ñàkk parce que ku nekk. Ah, ku nekk waaw ku nekk sa dëkk ngay ngay ngay xeexal daal ngay défendre daal donc euh, bu ñëwee ñu du ñàkk ñun tam ñoo am lu ñu lu ñu bind jox ko ne ko lii ñun lu ñu soxla ci suñu gox bi. Mm-hmm. donc euh, loolu moom xam naa. dina dina dina am reporté nañ ko deux fois mais quand même bon ça le coup dina ñëw ñëw bi daal mooy problème bi waaw je pense que dina ñëw. Ah. Hmm. te bu ñëwee soxla. incha allah incha hmm. allah na nga ko eggee soxla. Hmm. Euh, ñuy dem monsieur le maire itam euh, jeexalee ko presque wala ponk yu mujj yi ci wàllum politique. Euh, euh, bennoo bokk yaakaar nga nekk waaw bennoo bokk yaakaar nga nekk dégg nga problème yi yëpp temps yi euh, indi liste jàppal liste conseil constitutionnel génn na nee na yeewi askan wi dina bokk Dakar bennoo bokk yaakaar bu ñu defoon pour rejeter surplus bi rejeter nañ ko bennoo bokk yaakaar nga nekk naka ngeen di waajalee élection législative yi ci fan par exemple. Euh, niveau national mais plus particulièrement à Sédhiou. à Sédhiou voilà <laughs> à Sédhiou bon élection législative bon man man man man maa ngi benn Bokk Yaakaar maa ngi supporter benn Bokk Yaakaar quel que soit candidat bu ñu indil. yow doo candidat. non man duma candidat. lu tax amoo ambition pour dem ambition euh, assemblée nationale. non mun naa am non si mun naa am ambition. lan moo tax demoo non mun naa am ambition dem. mais ñëpp mënuñu nekk député tamit xam nga am na fu ngay egg rek xel aussi. baax na si ko bu fekkee sampo sa yëkkatiwoo sa loxo de bëgg naa dem kenn du xam da ngay bëgg a dem. waaw kenn du ko xam kenn du ko xam mais xam nga politique del dem ndànk-ndànk politique jarul yàkkamte parce que am na lu bëri lu nekk am na am na lu lu nekk ci kanam. te lu nekk ci kanam euh, mun naa ne nekk loo xam ne euh, bu ñu bu ñu bu ñëpp ñu yàkkamte dem du arranger parti bi Benno Bokk Yaakaar parce que dina am tout le temps de boo boo wanee na bëgg nga boo wanee na bëgg nga bu ñu la nee du yow après dan mooy am dangay frustré c'est-à-dire man dafa am benn kii ma ne nit même soo bëggee bul naan man da ngay naan ñu ne la yow mais boo nee man bu bu dee bu dee suba du yëg nekkul yow da ngay mer dem sa yoon te loolu su bëree bëree mu am mu am kenn ku nekk man man man man alors ko deux personnes lañ si soxla les deux personnes la bu ñu leen choisir rek éclatement de am te éclatement boobu man du ma si adhéré parce que man moom lu ma bëgg mooy que je viens d'arriver am naa programme pour sama jënd commune naa toppatoo sama programme jënd commune bi jënd réglé wu lu tout à de dire bëgg nañ jënd nekk capital arrondissemental mhm. man bëgg naa mu nekk loolu te pour mu nekk loolu man vraiment naa concentré sama ko tey peut boo demoon ci euh, Euh, pencum ndaw réew ma nu ñu koy waxee wax jafe-jafe yi peut-être dégg-dégg bi fa lay gën a gaaw est-ce que yéen tam député yi ngeen am mu leen di yóbbu foofu ñu ngi wax jafe-jafe ñi nga xam ni moo di euh, ci euh, région bi. en tout cas bon ah, moom ko yóbbu assemblée te du wax problème. problème ah non non <laughs> loolu moom. loolu <laughs> loolu moom mënul nekk <laughs> loolu mënul nekk mënul nekk xam naa dañuy wax xam naa dañuy wax mais. bon léegi le suivi. Mhm. suivi mooy nekk problème ko man mën naa am problème. ma wax la ko. Mhm. nga dégg ko ma dem sama yoon mais su ma ñëwaatul di la ko rappeler mais doo doo dootoo di fàttale ko. Hmm? polémique bi bari na Benno Bokk Yaakaar Pastef wala sax Yewwi Askan Wi est-ce que waruñu dem ci élection yu apaisé fitna bañ a am. en tout cas loolu moo loolu moo gën daal ci réew mi. ñu dem ci élection apaisée sans fitna parce que dëkk bi daal réew mi euh, fitna daal xanaa xaju fi euh, réew mi islaam la donc euh, ñoo ñun daal xamuñu fitna lépp lu lu ñu war a régler ci fitna bu bu bu bu amee sax yàlla dafay koy da koy annulé de sorte que bon ñu jéem a négocier ku nekk am li mu war a am et ñu jàpp suñu réew mi liggéey ko comme nu ko population bi bëggee na Benno Bokk Yaakaar yàpp nga ni euh, bi yoon élection bi dina gañe Sédhiou Benno Bokk Yaakaar dina gañe Sédhiou dina gañe Sédhiou sans problème dina ko gañe ñan ngeen tàbb ba pare bon table bi euh, parce que man. Euh, euh, suñu ay candidat liste bi génnagul. waaw yow xam nga ko. xaw ma ko liste bi génnagul. mais yow di nga di nga di nga battre campagne ci dinaa battre campagne ci ñoom dinaa battre campagne parce que ñun ñoo ne benn Bokk Yaakaar lañ nekk te Benno Bokk Yaakaar boo fa nekkee rek du question tàbb nañ la yow tàbbuñu ma. moo war a woon la ginnaaw ko am. waaw frustration dina am mais il faut que ñu continuer di waxtaan si suñu biir pour que vraiment jàmm mën a dellu si. élection locale yi. Hmm. yow. Hmm. Benno Bokk Yaakaar. Hmm. wala APR. tab la woon. Pape Diallo lañ taboon. lan la da nga d'accord moo tax nga dem UCS dem ci élection yi. waaw dama parce que boobu dama am sama ambition pour sama gox. ambition la te ambition boobu man mënuma ko mënuma ko exploiter tant que maa ngi ginnaaw Pat Diallo 2014 candidat woon ci Benno Bokk Yaakaar man léegi moom président sortant mu ñëw nekkaat candidat. Mm-hmm. ñu ne ko ñu ne ko mu ñëw. Mm-hmm. mu négocier pour ñëw si ñun parce que il était au mu xam ñu négocier ko pour mu ñëw si ñun mu bañ mu ñëw ba fii waxtaan ak direction affaire benn Bokk Yaakaar lépp mu bañ bi mu ñëwee daal après mu changé dem tekki après il bati battu campagne avec tekki yàlla may ko ndab mu gañe bi mu gagné nag mu viré ñëw Benno Bokk Yaakaar toujours au maintien ñun ñu nekk toujours Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñu liggéey ak ñoom lu am élection bu am rek ñun dañuy voté benn Bokk Yaakaar élection bu am rek dañuy voté Benno Bokk Yaakaar euh, local bi local bi c'est vrai loolu du Yaakaar local man la ak papa ak keneen ak keneen ak keneen suñu biir ñu xool léegi kan mooy nekk candidat. amu leen consensus. léegi bu ñu nee euh, man candidat la ñoom. moom mënul bàyyi ça c'est sûr dama am sama camp mais moom du bàyyi. bi mhm. mu bàyyiwul léegi man ñi nekk sama ginnaaw ñu ne ma en tout cas daal da nekk candidat man dana bien sûr je suis léegi lan lañuy def il faut que ñu ñu mais dañoo toog bu à la minute tellement que bruit bu ñu amoon foofu. Mhm. ak force bu ñu amoon dañ doon xaar président bi décider. président bi mu ne Pape Diallo mooy candidat bi ah ñun on était dem ñu dem liste parallèle liste boobu liste mooy ICS bi ñu jël ko dem élection yàlla def ñu am lu ñu am. Mhm. mais. yaa Pape Diallo amu leen problème. non amuñu problème ak Pape Diallo. selon ñi ko ñenn di wax. non jamais jamais eu de problème avec Pape parce que da am nit dangay am ak nit problème bu dee da ngeen échanger bu dee da ngeen toog ci benn bërëb bu dee da am benn benn benn vision voilà mais yàlla def ne maag papa échanger wuñu suñu échanger mu suñu toog benn place donc ce qui veut dire que bon peut-être su problème amee xëy na ñoom ñoo am problème si man mais man awma benn problème contre ñoom monsieur le kontaan nañ trop wax wax loo naa la li xam naa ni euh, bëgguloo wax sax euh, ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax parce que li ñu ci jublu mooy émission gox bi waxtaanee ci gox ak goxaan yi nga ñëw ñu waxtaanee ko itam moo ñu yitteel mais en ñun si suñu wàllu bopp ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ni ñoom ñoo duy mbokk auditeurs yi ak auditrices yi nga xam ni ñoom ñuy dégg surtout waa Diendé en euh, maa ngi lay remercier bu baax euh, Dramé ak sa waa groupe bi yëpp di remercier l'initiateur <laughs> de cette émission parce que yow xamoo ne maa ngi fi. <laughs> xamoo ma tamit <laughs> am na ku la ku ma joxoon koy remercier bu baax a baax di remercier suñu diaspora bi Eh, te di leen encourager si lu ñu nekk di ñu taxawal pour que ñun lu ñu bëgg mm-hmm. et puis arrêté wul ci ambulance bi kese mm-hmm. ci am na yeneen yeneen yeneen yeneen vraiment di leen si remercier bu baax a baax a baax di leen ñaanal daal yàlla yombalal ñu yépp mm-hmm. maa ngi remercier tamit sama militant ak militante sama équipe municipale bi di leen remercier bu baax parce que tey tey tey boo gisee man ma ñëw fii ba di yàgg fii. Mm-hmm. am naa lu nekk sama ginnaaw loo xam ne daal c'est compacté. Mm-hmm. am équipe bu dynamique naa équipe bu dynamique boo xam ne daal vraiment mun naa dem fu ne ma toog foofu lu ma am ñaar xel ginnaaw donc maa ngi leen remercier bu baax. di remercier auditeurs yi ak auditrices yi yëpp. di la ne vraiment kontaan naa lool. si si émission bi. Mhm. di la remercier di la jaajëfal ok merci. jërëjëf euh, monsieur le maire Doura Cissé moo nekkoon suñu gan mooy maire bu jëndee émission gox bi lañ doon amal niki tey en tout cas di gërëm Léopold Mendy moom mi nga xam ni moom moo nekkoon ci xarale gi ñu jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM.